Mercredi 4 mars 2020, RFM Matin, bonjour à tous, bon réveil, bonne journée, 6h les infos. Le Flash Info est présenté par Barthélémy Gom. bonjour Barthélémy. Bonjour Babacaré, bonjour à tous. Le calife général des Mourides qui appelle à une lecture du Coran ce mercredi dans toutes les localités. Euh, la cérémonie ici à Dakar aura lieu à la mosquée Massalikoul Guinan. Samba Diaw, un des organisateurs au téléphone avec Makumba Bey le ndigal euh, effectivement du Khalif général des Mourites euh, consiste à un restaurant du Saint-Coran. Vous savez, le Khalif général des Mourites, c'est Muntaha, Il y a le te dans les périodes euh, avant et et même à venir donner des, des consignes euh, de récital du Saint-Coran pour quand même euh, parer à d'éventuels euh, événements malheureux. Et c'est à cet effet qu'il a, recommandé pour le 3, le, le, 4 mars, un récital du Saint-Coran sur l'ensemble du territoire sénégalais et à l'extérieur euh, y compris la diaspora. Pour Mazali al euh, est fin prêt à Sindigal, sous la direction du représentant du chef général des Mourides à la Faye. Donc dès demain matin, Inch'Allah, la grande mosquée sera occupée par les fidèles talibés et sous la direction de la commission religieuse dirigée par l'imam Sin Ndou euh, et secondée par euh, Khadim Donc ça sera le matin jusqu'à 17h tous les de talibés de Dakar et environnants sont, sont invités sous la direction d'Aladjimba Koufaï, le, le représentant de régional Général des Mourides. Le Khalif général des Mourides, donc, euh, qui appelle à des prières pour conjurer le mauvais sort, mais également prier pour que euh, le Sénégal soit préservé de cette maladie, le coronavirus. Notez justement que notre pays a enregistré un deuxième cas. Il s'agit euh, d'un résident français âgé de 80 ans qui est arrivé au Sénégal le 29 février. Il a été diagnostiqué positif à l'hôpital Roi Baudouin. Au même moment, les tests effectués sur la famille du premier malade se sont révélés négatifs. Lutte contre la corruption, les deux derniers rapports euh, de l'OFNAC sont désormais disponibles sur le site d'information de l'Office national de lutte contre la corruption. Dans celui de 2018, l'affaire des 24 milliards remis à Minna Distribution par laser euh, sans justificatif. L'affaire Petrotim cristallise également les débats dans le rapport d'activité de euh, d'activité 2017 de l'OFNAC. Les agents de la police centrale ont laissé libre champ à Guy Marius Sagna pour qu'il puisse accéder au gris du palais parce qu'il ne ne voulaient pas de leur commissaire qui était un militaire. Révélation de maître Hourey Shiba, un des avocats de Guy Marius euh, Sagna. L'avocat regrette par ailleurs les conditions de détention de l'activiste au camp pénal Guy Marius Sagna qui, je le rappelle, a été euh, libéré hier. Situation en Guinée, euh, l'Organisation internationale de la francophonie soutient la déclaration conjointe de la Commission de l'Union africaine et de la Commission de la CODAO e euh, du 1er mars. L'OIF euh, souhaite le report des législatives et du référendum constitutionnel. Babacar, c'est tout pour ce flash d'informations. Barthélémy Ngom, merci. RFM matin xabaar yi ci gàttal ci wolof Mouhamed Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam Serigne Fall Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal di rafetlu nañu yeewoo ak ni ñu ànd ak rajo Futur Média. jukkib xabaaru suba si des koy doo rek ndigal li bàyyeekoo ci Serigne Mountakha ba Bassirou xalifa général des Mourides sàkku ci bépp jullit fu mu mën di nekk ci réew mi mu euh, xëyee tey ji ci ba ji njàngum alxuraanul karim fii ci ndakaaru nag ña ngi koy defee ca jumay masalikul jinaan euh, foofee kon fa la ñuy amale njàngum alxuraanul karim yi bu dee ci ndakaaru ñu teewlu kàddu yi Samba Diaw di kàddu yi leeral moom Samba Diaw bokk ci organisateurs yi euh, am nay kàddu yi leeral yooyu na ko ci Makumba Bey jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu Makumba xalif général des mourides moom ba mu toogee ba nëgg ni avant même ses prédécesseurs ñi nga xam ne ñoo ko jiitu day am périodicité boo xam ne digal taalibe ay ñaan moo tax fan yi boo gisee euh, mu ne woon nag poroxaan bi avant mu am le trois maanaam le le quatre ñu def ñaan goo xam ne dañ koy ñaanal waa réew mépp ak bitim réew ak yëpp te booba sax daanaka lii nga xam ne te jii mooy euh, coronavirus bi nga xam ne loolu ñuy wax jàngoro joo xam ne mu ngi wër réew mi bitim réew ñëw boobu ñëwagul waaye moom da koy sakku ñaan goo xam ne euh, annuellement da koy def moo tax moom mu digle ko la kat euh, ba nga xam ne ñun ndigal leen ci am mooy ndigal ci ñëpp am rek alaaji mbàkk yu fay nag moom xam nga ne moo nekk fii ci ndakaaru ak li ko wër ndigal li bi ko sëñ bi joxee tamit mooy bu nu xëyee suba dañuy wàcce kaamil xëyee ko ba ngoon rek nin ko daan defee nga xam ne fii Masaalikul Jinaan taalibe sëñ Tuubaa yëpp yëpp yëpp dañ fi ñëw particularité bi mooy jumaa ji xam nga ne tijji na ci biir jumaa ji incha allah euh, récital du Saint Coran boobu dees na ko fi def imam bi nga xam ne mooy imam Basirou Lo ak Khadim Lo mi nga xam ne mooy naayam bi ak la commission religieuse bi yëpp incha allah eh, daan ko xëyee ba ba ñu julli tàkkusaan rek ne ko sëñ bi eh, digle. nii noonu Samba Diaw euh, moom xalif général des Mourides nag ni ko Samba waxee li mu ci sàkku daal bokk na ci ñu ñaan senegal yàlla musal ko ci jàngoroy coronavirus ji waaye it ñaan jàmm ci mim réew. fàttali ne kon am na ñaareelu doomu aadama bu ñu nimiku ne am na jàngoroy coronavirus gi ci réewum Sénégal gi yoon benn doomu benn waay la bu eh, dëkk France mi ngi toll ci juróom-ñett fukki at yegg si woon Sénégal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février ginnaaw bi ci la ñu ko yóbbu hôpital Roi Baudouin daal di koy diagnostiqué amit ay test yoo xamante ne ji def nañ ko ci moom ci lañ xamee ne mi ngeek coronavirus bi ci yooyu la jamono fàttali ne ki ñu njëkkoon a nimiku ci moom ka euh, coronavirus ba taxoon ak njabootam ñu tëye leen seetlu gi moo di njaboot gi def nañu ci ñoom ay tests waaye daal euh, tests yooyee la muy wane mooy dara jotu leen xeex gi ñuy xeex wàllu corruption ñaari rapport yu mujj yi OFNAC daal di siiwal jàppale ne kon léegi ku dem ci site bu OFNAC da nga ko fa mën a fekk ci rapport 2018 bi coowal 24 milliards yi nga xamante ne ji kon euh, ASER jébbaloon na ko Minna Distribution ci lu ñu justifié wul loola ma nga ca mbirum Petrotim ak it li nga xamante ne ji daal mooy euh, moo moo nekk kon ci deux mille rapport 2017 bu OFNAC bi. leneen ci wàllu xabaar agence police centrale li tax kon ñu bàyyi Guy yu Sagna di ko seetaan ba mu dem la ngaa mujj ci gi giri yu palais de la république ba ngir di ñaawlu courant gi ñu yokk ak njegam li tax policiers yi di ko seetaan moo di seen commissaire ba leen jiite woon dip militaire la ñu xajowul woon moo tax ñu toog rek ñoom it faste seeni loxo loolay kàddu la yu bàyyeekoo ci maître Khoureychi Ba bokk ci avocat mar Marius Sagna yi muy ñaawlit anam yi nga xamante ne ji ab clientam noonee dañu ko téye woon ci kaso camp pénal fàttali ne Guy Marius Sagna mujj nañu ko kon libéré mu daal di euh, dellu këram sëñ Fall.